ngi lay ziar di la waaw ñoo ngi lay fay di nuyu Sénégal gépp di leen masawu di leen baalu àq waaw di leen baalu àq tamit bu baax waaw parce que lii moo ñu war quoi depuis tabaski bi ba léegi gaa yaa ngi laajte làmb foo ne waaw làmb nekkul woon si lu dul préparation xam nga ne daa métti doo mën a mais sant yàlla bu baax comme que passé nañ ko si jàmm ñëpp ñëwaat si làmb ji kon loolu sant yàlla bu baax di nuyu fan si yëpp waaw di leen ziare di leen xam ne làmb dégg na commentaire sas nañ ko. te si waar la ne. ñu jëm si combat bu mag ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux noo gisee boobu combat. waaw combat la boo xamante ni combat bu doy waar a ngi noonu ndax combat bi li tax mu doy waar mooy Sénégal sax ñoo la gën a xam ne ni fi ne nii mënuñu koo costa ku ko costa rek da ngay juum ndax Gris nekk na si dimension yoo xamante ni Serigne Ndiaye daa génn def jaloore Ada Fass nekk di jaf jaloore ñu boolewaat igri Fass ak igri Ndakaaru kon xam nga ni ñooñu teg jeexal la ñuy def. rawatina nag waa Guédiawaye waa Guédiawaye dañoo yoroon mbër mu tamal leen gagné daan ñibbi dem ba si biir ñu nekkaat si defaraat ko kon combat bi ku ne xam na ni risque la def di ñaan yàlla àgg si ñoom ñaar ñëpp bëre ko si jàmm ak salaam. mais ci combat boobu ñaari ñaari mbëri seen i qualité kan moo gën a baax qualité. waaw waaw dañ lay waaw dinañ si qualité yi mais lamb ju amul favori amul lamb bu amul favori neexul bu dee cinquante cinquante rek raar na si lamb. mais lamb jooju ko waxee favori Balla Gaye mooy favori. Balla gay mooy favori. mooy favori nan la Balla Gaye nekkee favori. na Balla moo mujj si kawam te Balla bi muy bëreeg Gris bi bii paase si xeex lañ mujj kon si bëre lañ jëm bëre kat moo ko gën a mën. Balla Gaye Balla Gaye moo gën a pare si bëre maanaam li mu defagum si bëre Gris mën nga ni sax defagu ko si bëre Gris mi ngi def jaloore de mi ngi def sañ-sañ mi ngi def mën-mën. mais Balla dafa déparé noo xamante ni pour nga kostaa ko si bëri du yomb dëgg neexul. mais ñu bari ne Gris Bordeaux moo xeex Balla Gaye ndax xeexu benn benn lay xeex d' accord nga loolu wala d' accord loolu. waaw daa d' accord d' que ah li tax d' loolu mooy ñaari mbër bi ñu xeexee keroog munoo wax kan moo gagné ñoom ñaar ñëpp perte nañ énergie génn nañ li ñu am mais Gris ba mu dalee xeex ba léegi gagnéegul Gris amoon na fi tël boo xamante ni bu la jàppee bu la tëlee sa ginnaaw saako la lay yóbbu mais Gris ba mu ba léegi daarul kenn waaw loolu am na si Gris. mais mais ba tey ñu gisaat 200 pour cent bi ak 100 pour cent bi fi may njëkk a yow mooy sotti bi nga xam ne moom la Ada def ci diggante Gris Bordeaux d' accord nga ko en tant que Ada Fass mbër mu ndaw. Ada sorti bi mu def. d' accord nga li mu def wala d' accordoo ko ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux ndax dañ ko laaj mu ne terrain neutre la nekk. ku c'est le maire gañ. d' accord nga loolu wala d' accord li ma waxoon waa ji ma journaliste bi Père Ibou moom laay waxaat gis nga ñaar ñuy wër garab boo fekkool commencement ba xamoo ko jiitu te man les lamb sawaruma di dugg si ñaari nit quoi parce que nekkul lëndëm ku la fa njëkk moo lay wax fi ngay toogee bu fekkee daa ah, booy daa juum na ko giri baal te xam ne xale la bu deretam yëngoo day leer mais bu fekkee ne booy bi juum na sax giree ko war a taloore te giri am na expérience boobu ndax xam ne ay xale rek lañ Ada Fass xañ na wax na ko loolu mais looloo ko jig bu waxoon leneen leneen gàddu ko mais sorti sorti Lac de bi nag ak Balla Gaye sorti Lac de Guiers waaw mu wax si du yomb parce que nit nit boppam rek la am ngi dégg nit amul dul boppam nit da nga koy teel li mu moom mu moom li mu xam mu garder ko parce que Balla ak la. mais moom da woone ko kaañu liggéey. xoolal bu ñëba woon léegi doon fu ko woo dee am na ñu naan ma ko wax moo tax Balla jëlu ko. mais boo ko wooyee mënu koo jot nag amoo droit dem si média man bu ma mënoon a àgg si Balla Gaye jar na may wax kon si Sidi mais ku iñaane sa dono sa deen ñaaw Balla Gaye tey bu àndul ak euh, la de guerre la dama seeti yeneen image yi est-ce que nañ boobu ñi ngi daan wala daanuñu kon boo ko waxee kaay rek damaa yaakaar ne bu juumee moom baala moo ko war a ratifié dem moom Balla kan moo mës a wax si moom ba mu wax la kaay man maa ngi nii di wax si moom moom li ma ko lebal moom li ma ko bëggee ba doon ko toppee est ce que moom waroon na ma féliciter si loolu sax ne ma làmb kaay du dëgg gënul neex mais la de guerre laay conseillé ba borom biir bi daw boo ko gunge bu dawul bul daw na la de guerre bàyyi xel si loolu te la de guerre ko xam-xam ne gaynde la ñaata booy ñooy bëree mu leen di jàppale ah bari na ñaata booy kii la way ngay gis ñu nekk écurie la de guerre am forme bari na am dëgër bari na la de guerre mos Europe Sa Thiès mos naa dem Europe. déedéet ban mbër moo dem Europe ëpp Sa ak Lac de Guiers. gisuma ko pourtant jom lañ. Sa Thiès ko gën a xam si gaynde da nga kaa xam fenn. da nga kaa mos a dégg mu tontu kenn. waaye nag ku ëpp xaalis bëgg laa wan sa doole. waaw xañ na loolu la. la mooy si côté entraînement. Lac de mën a apporter si côté entraînement. mais contact ak Lac ba mu tëla rek mbër yu bëri da lay të ndax Lac moo të mbëri am déet. Lac de Guiers bu doon chargeur la ma ne chargeur anniversaire la amul téléphone bu munta chargé mbër yaa ngi nii di ko wër boobu ba léegi benn daa benn benn benn fakastalu la am te Lac de Guiers ku ko gën palmarès daa am Lac de Guiers la lamb joxul cër moo tax bu waxee kenn du ko dégg ta la de Guiers tooñul Géejawaay benn defet la am te man xamuma ko de moo baala laa yemale kenn gisuma ci ken barke alxuraan laa la wax de Lac de Guiers mu taxaw moo ma gënal mu doon daanu man ku ko doon supporté match nul moo ma gënal defet mais li Balla Gaye communiqué ak Lac de Guiers d'accord nga ci wala d'accord ci. non Balla moom wàllam la moom moom la xool nu koy leex mu leex ko Balla yàgg naa ak média mënul wax man Leuz Lamb ma koy corriger si li muy wax sama yoon newul si li muy wax parce que dëgg du rombi nopp quoi ndax Sénégal yàkkamtiwuñ lu dul nga wax si nit ñu yaakaar ne man damaa topp si Balla bi di ko Balla Balla non non Balla dama kaa bëgg yaa ngi dégg man du ma bañ nit mbër yëpp laa yemale mais du tee ma wax qualité mbër yi ñuy am. bu fekkee loolu la may meree du day chaque jour day mer parce que man dama nekk si làmb pour tollale na rang yi jub bu rang i jubul ma ne la dugal mu tafu mu leer loolu la ma gars yi tooyee mais bu su ma noppee wàcc si dëgg gi ñu waxal ma sama bopp comme niñ koy laajee c'est ça le problème. mais ñoo ci xeex ak mu xeex ak Gris. kañ lay jeex takkandeer da si am wàll de kii sama doomu nday la quatre appuis bu ma ko bàyyee xamu fu ma jëm gars yi ñoo may laaj naa ma làmb ana ka appuis moo tax ma ñëw si quatre appuis ndax 4 appuis fi may coq moom doo nga ma fa mën a coq ma wax boo demee nga xool image yi ma def ak 4 appuis yëpp na si commentaire yi bàyyi xel parce que man damay soxla docteur parce que làmb bu yëngoo sa sidit day yëngu mooy waxkat buñ ko laaje fañ ko war a laaj day wax si da si yomb moo tax may gërëm 4 appuis fu ma woo ma wuyu ko waaw. ci combat bi nag ci combat bi Balla Gaye 2 ci combat bi. lan la ko mën a apporter. Balla Gaye 2 mu appel ko si xeex ñëw si bëre moo ko ko xañeel parce ñun ñi nga xam ay supporters ak ñeneen ñi si ginnaawam mu tamal leen victoire ba pare victoire rek a ko jig mais Gris nekk na mbër moo xamante ni combat bu mu ñorul woon du bi combat moom parce que combat bi combat bu ko ñor parce que bu yeexamtaloo rek ñoom Serigne Ndiaye dañuy dàq fas si kawam waxal Ada Fass xuuxal na ñoom Serigne kon Gris gagné rek ko war kon combat bi ko Costa Diouf waaw. dëgg la waaw miski dem si soos mburu ñaar lay bañ. Balla lu mu war Balla war naa mën a ñëw jege ko torop fottu gauche li droite bu droite bi jógee mu juyoo moom bu jàppee ngeen si fini. bu Gris war a bëree. Gris daa war a teel a njëkk a bala koo Balla njëkk a bëree Gris am na fu muy àgg Balla ñun waa Guédiawaye ñëpp dar suñuy nopp ndax Gris tëlewul te Gris nante la waaw gërmi la gararal la. ki ne leen Balla mënul ngembal Gris. kan. xaar ma ko wax rek. waaw mu jàpp ngembal Gris. Balla day bëre sans ngembo waaw. nee ni moo tax. Balla day bëre sàngee bu Balla keroog ba muy tënk Yékini si laafi la jaar doore ko appel bi taxabal ko mu dóor appel mu def 2 3 tuural ma ko nële Balla jarul ngay jàngal bëre lu mu na miti miti miti bu doon zóor la ma xam ne Balla 10 la tey ba Bordeaux bu doon zóor la ma xam ne 10 la kon ñaari 10 lañ boole si biir attaquant yi kon il faut làmb ji metti te yàgg waaw Mbiscuit du dem si soos mburu ñaar lay bañ di gërëm may mun a ot bu baax parce que daa jàpp si tabaski gi tey laa man mi ngi wax si télé yi trop di wax si site yi ñu naan ma wutal contact wutal lépp mais tey am naa nit koo xamante ni saa yu méttee bu ma demee si këram mu jox ma xar jox ma cent mille francs ne ma demal nga tabaski te pourtant yàlla yàgg na maa may ay tabaski mais ku la may dafa gën a neex kooku boo ko waxul defe yaa nga kon kenn gërëmul ku dul may munoo ot maa ngi koy gërëm lu mu mën tey bu déwénee yàlla na ko mën li muy yóotu moog jëkkëram muy muy maire ba muy muy électorat yi yàlla na ko ku gën si moom mu gagné parce que waxuma ay Macky na gagné rek wala Sonko bu mu gagné non non ku gën si réew mi yàlla na gagné mais réew mi méttiwul métti bu ñuy yuuxoo méttiwul métti bi booy rayantee nañ def ndànk rek parce que ndànk méttiwul neexum ngontu xam fa ngay fanaanee ko gën mën a waaxu xam yoon waa ko gën ndax ku xamul ba nga xam da ngay fekk suba kon jarul ngay xeexal Sonko wala ngay xeexal Macky Sall na si réew mi bàyyi xel te xam ne àdduna du benn fan mënuñoo ndax tuuti nañ si ndax ña leen magoon que ñoom yàq ko da tuuti si ñoom nañ si bàyyi xel merci.